tey wax lu ko wóor kii du nogoy du jaas tànk si suuf jaan si suuf yàgg yàgg daje nogoy toogaay jeex gitu. iya, na moo doom yaa ngi kër kër gu mooy eh. say ñàkk fayda yi man nekkuma ci de maa ngi dem nag soo ñëwee nga nga dab ma soo mënta dab nga fekk ma kër ga yow daal doo ma sa changé moo doom yaa ngi kër góor gi may sa ba léegi waaw fa mu ñaari ñaar fa xam nga xam nañ sama

si suufam rek laa dëkk. boo ma soxlaa rek fekk ma fa. daa am saa benn bu may xool fële rek waaw aw ma toogaay nag. waaw na koy góorgóorlu si jërëjëf doom jërëjëf. tey wàcc naa. xam naa tey war nga xiif de. tey moom xiif naa trop. dëgg la waaye li nga gën a bëgg nag laa toll. mbaa loolu li ma rek. laax la. Hmm. xam nga ne fi may fële dafa nooy. tey moom bëgg naa ci yow trop. damaa bëgg naa nga reer ba suur. incha allah loo soxla rek maa ngi si biir. d'accord jërëjëf mais si kanam. merci. allo oui. waaw noo koy foo toll waaye si buntu bi waaw ki ñaan gi ànd ak pexe fa yàllay defaree nit mënu faa yegg ba yàq. oui entrez. maaleykum salaam. ça va Noé. Baja si Eksil. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bajam dan genam. Jam rek santo. Jase. Sane la. Sane. Jase. Sane. Jase. Imdila sane. Seram jam. Bismillah. Bakken tawtul. Nyebang si jam. Sane. Imdila. Sane. Tubarikallah. Imdila. Ah ngeen baal mo suma ñaar soxna yi. Mhm. Nafi. Khadi. Naam. Excellent. Wow. kaa leen toog waaw ngeen baal ma waxtaan bi la waxtaanu jàmm rek la waaye balaa may commencé dara damay laaj sama ñaari soxna yi toog ndax xam ngeen góor gële toog góor gi nijaay kii xamuñu ko kii de nijaay kanamam gu ñànga gi maa ngi di ko gis xawma ka man ngeen ma baña xamé tay ji jii kañ man ngeen ma baña xamé waye goor góor gi saana damaa bëgg rek nga jël laax bi nga jox leen ah waaw waaw gis nga ne jaay ki bëggul lu dul tas suñu sëy xamuñu ko xama kanamam bu ñang gi musuma xaar la xawla la wala dama ne ki dafa ñew ngir tas kër gi wala ñewul ngir tas kër gi laax bi bokay koy laax bi nak mu ngi ne xanaa ngeen sañ ko lek jaay ñu reer nañ ba suur reer nañ ba suur laax bi dara amu si reer ngeen ba pare jërëjëf man ngeen a jóg. jóg leen. déedéet tonton may sax génn di am man maay génne ndaxte man maa ñëw si kër gi nga jàppe ma comme doom ñoom ñu jël ma jàppe ma comme doom kon lii yëpp am man maay fautif bi kon boo leen génnee kër gi day leen ni man maay fautif bi ma sañoon nga bàyyi leen fi ndax xaj na seytaane moom moo leen man man ma génne kër gi ma dem no koy ku lox loolu sa wërsëg mu ngi si kër gi mhm. ndaxte ki la tëree faatu kooku amoo payal tey sax mbaaxaay moo tax faatuwuma waaye ñii léegi sax yéen jóg leen mais levez-vous. ay nijaay bàyyi ñu waxtaan. jóg leen da ngeen bàyyi jooy mag boo amee sutura moo ko may boppam donc bugg ngeen dugg seen nekk ngeen jël li ngeen fi am ngeen toog seen kër nday ngeen xaar eh Xadi lii nag kooku fii bàyyi. jërëjëf seen jaase man kat jarumaa jaajëfal kii nag moo jar a jaajëfal nu koy mii ndax nit ku baax a ngi te nag dama lay dénku benn affaire man man tooguma aw ma toogaay sàllaaw aw toogaay maa ngi lay dénku lenn nag jaboot buy lekk du lekk moom dong rawatina bu jabor ju am ñetti soxna upp na def jabor du lek mom dong bo legge dal boy lek na nga lek soxna su tok jabor tok nga lek ndok ñom lolo yu sax man kat damay dem togaay ma mom awma togaay sané ma toogaay saane maa ngi dem saane jërëjëf sëñ jërëjëf waaye sëñ jaasi ngay dem mm-hmm. ma xamal ne la mm-hmm. yalla dafa ne mm-hmm. kulli nafsin saayixatul mawti dëgg bakkan bu ñom dund di nga ñaw waaw waaw waaye yalla moy ray mooy dundal. Mm-hmm. doomu jàmbur nag ku koy yàq rek danga koo jurul beneen yoon bu mu la talati. dëgg la jërëjëf sallaaw wax